wal abraar kasratu nifaaqi wa kasratu nifaaqi wal fujjaari nee sa maam waxoon na loolu. loolu ku koy seet ci jamono. nee loolu ku koy seet ci jamono. fa fujjaar yi bari tey. fa fujjaar yi bari tey. ak kufaar yi. ak kufaar yi. ca biir jàkka yàlla. ca biir jàkka yàlla. ah wax ci wax ci xasida bu yéeme. nee xasida bu yéeme. bu yéeme. bu yéeme. kasratul jahli. kasratul jahli. jàngoo bëgg a nekk kilifa. jàngoo bëgg a nekk kilifa te mooy imam rek. te mooy imam rek. amul ah, loo ko déy. nee loo ko déy. mu senn. mu senn. loo ko dénk. loo ko dénk. mu lekk mu lekk. mu ah. ko déy mu senn loo mu ne mu ne nag xillatul xayaa. mu ne nag xillatul xayaa. kersa amatul. kersa amatul. ñu ne ko mbàkke ci ñan. mu ni ñu ne ko mbàkke ci ñan. mu ni fi niswaan. mu ni fi niswaan. ci jigéen ñi ci jigéen ñi amatuñu kersa. déedéet. xamuñu fu ñu war a yem ak fu ñu warta yem. xamuñu fu ñu war a yem ak fu ñu warta yem. déedéet mu ni wa xillatul xayaa. mu ni wa xillatul xayaa. ku waroon defar xale yi. ku waroon defar xale yi. cig ndaw cig ndaw.